suñu mbokk jàkkaar lu ñu ci duñu warahmatullahi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci ndigalal serigne ahmadul Mukhtar mbake khalifa daru xuddoos ci fuk serigne ousmane mbake mi jité diwanul muridina ak serigne cheikh ndjay mi jité village bu daru xuddoos ño am bekté contenté di mbokk mbokki jullit mbokk talibé yi ci bis bi nga xamanteni mom lañuy wajalé magal ak daru muy mbalem daru ñukay amal at mu jot ren nak mu nek aljuma le 13 septembre incha allahu rabbi looloo tax nee nañu ñoo ngi ciy woo mbokki yi léegi mbokki taalibe yi xarit yi soppe yi wala rek am di daayira am di jàmm yi di ci woo mbooleem daayira yi di ci woo mbooleem kuréel yi seetal yi bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ngir woote woote boobu nag ñoo ngi fii ci village sub Daaru Xuddoos ngir xam nañ solo si nga xam ni Cheikh Mouhamadul Moustapha joxoon na ko seetal dëkk bu sell bi Daaru Xuddoos rawatina saa yu màggal gi daan jub si taxawaay bu am solo bi nga xam ni daan na ko ci am ren jiitam noonu la ko sëriñ Ahmadul Muxtaar fas yéene defee ànd koog mbokki taalibe yi génn ubbi mbale mi ni mu ko daan defee at mu jot wala képp koo xamante ni yebal na la nga ñëw ubbi li nga xam ni moo di mbaleem Daaru Xuddoos ngir woote woote boobu nag ñoo ngi fii ci village bu Daaru Xuddoos feggoog sëriñ Seex Njaay mi nga xam ni moo ko jiite ñu ñaan yàlla tawféexal ko ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekk ci village bi yëpp ca séq mbale mi ñu fas yéene woote woote boo bule ci ndigalul sëriñ Ousmane Mbakke mi nga xam ne moo jiite diwaanu Mouridina ñi ngi

ci biir ak ci biti loolu nag ginnaawam ñi ko fi wuutu ñëpp li ko tàmbalee ci sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Mbacke Madina ak sëriñ Mahamadan ak sëriñ Aliou Mbacke ak sëriñ Xaadim ba ci sëriñ Ahmadul Muxtaar ñu ñaan suñu borom yàggal ko lool ci kanam njaboot gi defal ko wér defal ko mboolem jullit yi loolu rek lañuy jël sunu kàddu ci turu kilifa yooyu ñu tudd léegi waaye ci turu sëriñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ne si mu jiite chef village bu Darou Khoudoss ak ñi mu ko bokkal ñëpp. lépp lu ñuy def ci yoonu murid nag eh, naka jekk waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall naka jekk ñoom ñoo cay man wala ñoo ci jiitu ñoo cay mujj looloo tax kii kilifa fi wax ne ñi ngi koy fàttali bu baax eh, njabootu maam Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride ak Serigne Fallou Fall mi nga xam ne mooy doomi Cheikh Mouhamadou Serigne eh, Mouhamadou Aminta Fall ak Serigne Moustapha Fall mi nga xam ne mooy jëwriñam waaye itam ci biir loolu soxna maam Boussa Mbacke moom seriñ Abdoul Aziz Mbacke. mi ngi soññi mboolem soxna yi nga xam ne si ñoo jiite daayira yi ci Ahibahil Khadim ni nusul diinul xadim fu ñu fi mën a nekkee ñu teel a génn ci mbale mi te buñ jóge mukk te wàccewuñu loolu soxna si wax ba tey itam sëriñ Abdoul Aziz bu guy mbind nga xam ne moo jiite fédération bu guy mbind bi te euh, njabootuk sëriñ Baara ak njabootuk Cheikh Mamadou Moussa di benn xam ne Daaru Xuddoos guy mbind genn kër la ku ku jiite kër gi yaa jiite kër ga ca des moom itam ci turu Serigne Abdoul Aziz mi nga xam ne moo jiite fédération bi ñu ngi soññ mboolem daayira yi nga xam ne si ñoo nekk guñ bindi ñëpp di ñaan suñu borom may nu nu ko ak jàmm te weesu ko te def ko ni nga xam ne noonu lañ ko santaanee te lépp nu dëpp dëppoog nu am ci ngërëmul Serigne bi ñu ngi koy ñaan di ñaan bokk yi kenn ku nekk nam ci daan jàppee mu jàppee ni noonu. ni ko Serigne Diop waxee léegi rek noonu la demee ci sëñ Mourou Moussa la bàyyi ko ba léegi ba ak si xalifa yi ba ak si sëñ Ahmadou Mokhtar ñu ngi ciy woo nag daayira yi nga xam ne ni moo di diwaanul muridina te moom moo likkale daayira yépp yi nekk ci daaru xudóos mu di daayira sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak daayira sëñ Moustapha Mohamed mooy daayira Ahibayil Xadim ak daayira wilaaya bi nga xam ne nii ci njiitul sëñ Abdourahman Gaynde Fatma la ñuy woo it sëñ Mbacke Madina di wo fédération sëñ Mbàkke Madina bépp ñu ngi koy woo ñu ngi wooy daayira nga xam ne ni mooy daayira sëñ Mahmoudan Xarilo ak daayira sëñ Aliyu Mbàkke ak daayira sëñ Ahmadou Mbàkke Tindoodi ak daayira sëñ Saaliwu Mbàkke ambassadeur ak daayira sëñ Ibrahima Mbàkke Absatu ak daayira sëñ Xaadim Mbàkke ibnu sëñ Moodu Musaa ak daayira sëñ Ahmadou Muxtaar Mbàkke ak daayira sëñ Fallu Mbàkke mi nga xam ni moo di caatum sëñ Moodu Musaa ak daayira bi nga xam ne ni moo di daayira ahbaabul Moustapha ak daayira bi nga xam ni moo di daayira ahibaayil Assane Ndiaye muy daayira sëñ Daaru Assane Ndiaye di wooyit bépp daayira boo xam ne ni daayira seet seetal la boo xam ne yaa ngi ci da Touba wala Daaru Xudóos ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu nga xam ne ni moo di bis bi ñuy seet seetal te muy ajuma la 13 septembre 1900 di 2019 di woo itam da soxna Astou Mbacké mi nga xam ne nii moo jiite jigéen ñi moom sëy Abdou Borom Dër bi di woo it soxna Issa Mbacké Ahlu kafe di woo it yi nga xam ne nii mooy daayira seet seetal yi ne ci dëkk bi bépp ak daayira bi nga xam ne moo di daayira Matlabul Fawzayni ak daayira bi nga xam ne moo di daayira Isbu Tarxiya di woo it bi nga xam ne nii mooy daayira soppey sëñ Modou Moustapha bi nga xam ne nii ay kuréel la ci biir dëkk bi yëpp ki ku ci tudd ku ci déggu sa tudd na nga xam ne ñu ngi lay woo ci seet seetal boobu ñu woo itam mboolem délégué de quartier yi nga xam ne nii aju nañ ci Daaru Xuddoos ak chef de yi nga xam ne aju nañ ci Touba yëpp délégué quartier yi nag yi aju ci Daaru Xuddoos yëpp sëñ si Cheikh Ndiaye nee na ni mu leen ko waxee woon ba mu leen di woo na ngeen ko ni defee kenn ku nee na soññee mbooloom ca quartier ba te bu bis baa ñoom ñëpp ñu ànd génn seetal dëkk bi nañ ko daa defee yàgg nañ koo def marché itam ñu ngi leen di soññi marché Daaru Xudóos marché maam Aminta loo marché maam Jaara marché garage bu soxna euh, soxna loo Jóob marché yooyu yëpp ñu ngi leen di soññ di soññi waa marché Ocass ndax marché Ocass ñu ci bari Daaru Xudóos gii lañ dëkk kon nag lañ leen daa wax at mu jot ñu di leen ko wax ñu leen koy soññi di soññi transporteurs yi nga xam ne ni ñoo dëkk fii ci Daaru Xudóos ak transporteurs yi dëkk ci Touba kenn ku ci nekk lañ la ci daa wax lépp ñu ngi la koy wax ñu ñaan ñu ñaan suñu borom defal nu ci tawfiix ndax loo xam ne sëñ Mourou Moussa moo ko njëkke woon defe ko ci boppam ñëpp di ko teewe ba léegi ñu di ko sàmbam egsi fii bu egsee fii nag ci noonu war nañ cee taxaw taxawaay boo xam ni dañ koy sàmm ñu itam nañ ko daan sàmme ba am ci ngërëmul lañ ci daa am. Euh, li nga xam ne mooy njëlbeenu kàddu gi ñuy jëkk jël nag mooy ab soññee la ak woote. mu jëm ci liggéey bii nga xam ne dañ ñu ko digal mooy mbalem euh, daaru euh, dëkk tuubaa bii le bu ñu nee Daaru Xudus dafee tàmbalee waaye ni sëñ Touba moom màggal gi sëñ Touba nga xam ne mooy ñu moomam ñëpp moom màggal gi noonu la ñëpp moom mbalem bi euh, kon koo xam ne yaakaar nga sëñ Touba rek bu ñu tuddee màggalu Daaru Xudus dañ ko koo tuddee nii waaye màggalu murid yëpp la kon gannaaw màggalu murid yëpp la nag bu ñu wootee mbale murid yëpp ci bokk. ak jullit yi sax ak ak ñi nga xam ne sopp nañ sëñ Tuubaa ndax Tuubaa li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati la wax kon ki wax loolu euh, kenn génnut ci moom kon foofu lañuy ñuy tàmbalee bi li xam leen daal ku dégg suñ kàddu ak foo ko mën a dégg liggéey bi moom am nga ci cër am nga ci taxawaay am nga ci wàccuwaay am nga ci itam ni ko Cheikh Moustapha digle woon te képp koo xam ne setal nga ci benn mètre wala loo ci setal say bàkkaar seti benn bis bu engagé boobu euh, loolu amul te bisub sëñ bi engagé na loolu ndax Cheikh Moustapha sëñ Moustapha Gueye moo nettali ne Cheikh Moustapha bi ñuy bale Touba dafa bale ëmb ci garaam bam loolu sëñ Moustapha Gueye mi jiite woon Cheikh si moo na ko nettali booba mi yor jukki bi alxuraan la moom waaye ne sëñ Mourou saa dafa ëmb ci mbubam mbalit ma kon ku nekk xam na ne kon wàccut ku fi nekk ku ne bale wàccu la kon ñu ngi woon ñëpp ngir ñu teew si ci bis boobu bii di ajjuma ñu war cee liggéey mbalem dëkk bi dafa am kilifa yu nu séqal yoon wi ñu ñuy kilifa yoo xam ne dañ fee yàgg yàgg a yor cër sëñ seexal leen taxawu leen jàppale leen ba kenn ku nekk fa nga nekk gis nga ne sëñtubaa moo nekk ci yow am ay mbooloo yum la booleel nga xam ne sëñ Tuubaa moom moo def loolu ah mbooloo yooyu nag seex soosu nag la ñu bëgg tudd fii ngir ñu xam ne ñoom itam kenn jiituwu leen ci liggéey bi ndax kenn gënu leen a rëy cër ci yoonu Sëriñ Tuubaa kon seex soosu danañ tàmbalee ci euh, Serigne Cheikh Lappe mi nga xam ne mbooleem ku fi yore kuréel ci dëkk bi di bale moo nekk jëwriñ ja euh, ñu maanaam ñu di ci teg nag euh, Serigne Mbacke Gueye Ngathie mi nga xam ne moo jiiti moo jiite seexi Daaru Xudoos yi di woo jëwriñam yi ne fii ci dëkk bi nekkal ko fi tàmbalee ko ci Serigne Xaadim Gueye Ah, buñ ci jógee itam ñu ngi woo Serigne Cheikh Ndigal Fall eh, di woo itam eh, Serigne Cheikh Ridial Seck eh, Gëm Bamba waaye Serigne Abdoul Khadir Ndiaye muy waa Dëru Ndiaye. ñu ciy jiital ci woote bi sëriñ Fallou Mbakke président conseil départemental bu Mbakke ak ñi àndal ñëpp ca liggéey boobe di leen sant seeni taxawaay yu jiitu tey di leen soññ ci li suñu kanam di soññi bu baax a baax a baax maire président Abdoulaye Ka ak mbooleem ñam bokkal maire ba ñëpp ak ay congé am noo ngi soññ bu baax maire Mbacke Abdou Mbacke Ndaw moom itam di ko sant ci taxawaayam ak jàppam ci liggéey bii nu jëm ci li jiitu di ko soññ ci li suñu kanam noo ngi fàttali liggéey bii xanaa fàttali doon sant duñ ko soññ mooy Serigne Cheikh Abdou Mbacke Baali mi nga xam ne moo jiite commission hygiène ak prévention ci commune Touba bis bii di ab bisam bis bii di bisu maamam bis bii di bis bu maamam daan woote mu am ci cër boo toll ni ñu war ko cee woo soññ ko ci jox ko ci wàccuwaay bi mu am rawatina mu nekk ministre conseil ci dëkk bii di Touba noo koy soññ bu baax moom seen Cheikh Abdou di ko ci tàllal loxo di ko wax ni ko bis bi sa bisu maam la noo ngi soññ itam Serigne Cheikh Baara Guèye président commune bu Daaru Nahim moom itam jàmbaar la taxawaayam rafet na daana jàpp jàpp naka jekk waaye noo ngi koy gën a soññ ci tur kilifa yi nga xay ñoo ne suñu kanam yëpp noo ngi soññ bu baax a baax itam ak di fàttale waa UGC nga xam ne ñoo yor wàllu mbale mi ci dëkk bi ñoom la ko gouvernement bi teg seen loxo ci lépp loo xamante bi luy setal dëkk bi ci ñoom la war a jaare noo leen di soññ ci di leen tàllal loxo ci bépp matériel boo xam ni am ngeen ko wala moyen boo xam ne mën ngeen ñu ci jàppale noo ngi leen ci soññ ci di leen ci xaar ci xam ni loolu bokk na ci liy jagal bés bi soññ ak a fàttali ak sant Moustapha Diop Serigne Moustapha Diop député dëkk fii Daaru Xuddoos di doomi dëkk bi di doomi kër gi di jàmbaar di yàgg jàpp ci liggéey bi ñu nekk noo ngi koy soññi moom itam bu baax a baax noo ngi soññi honorable député Abdoulaye Seck Sadaga ci taxawaayam ak di ko sant te di ko ñaanal suñu borom dolli ko ak wér waaye di ko ñaan itam lépp lu mu caan taxawe suñu yàlla dimbali ko ba mu mën ci taxawe lu la daraje sëñ Tuubaa noo ngi koy soññ bu baax a baax ci ajuma jiinu jëm topp dëppoog le 13 di ci soññiwaale mbooleem transporteur yi ak mbooleem ak mbooleem euh, koo xante bi ni daan nga jàpp ci mbale mi ci yor wàllu oto yor wàllu di joxe wala mu yor wàllu carburant wala lépp loo xante bi ni daan nañ daan daan ko jàpp ci ci ci mbala mi moo xam commerçant la moo xam transporteur la moo xam am na affaire la képp koo xam ni daan nga jàpp ci mbala mi noo lay fàttali bés bi ci lay ni la amuñu lu dul bis bii ndax ndigalu si Amadou Moustapha la. ñuy fàttali itam kenn tam koo xamante bi ni ci noonu la bokk di soxna maam xëri Mbàkke moom si Amadou Mourtala di jàmbaar di ñaayu xare di taxawu mboolem dëkk bi ak njaboot dëkk bi bis bii di bisu maamam bis bii di bisub maamam di bisub waajuram Cheikh Mamadou Moustapha mi ko woote ak sëñ Mourtala ñoo bokk lépp kon nag soxna maam xëri ñoo ngi lay fàttali bis bi. képp koo xam yaa ngi wax ashadu an wa ashadu anna muhammad rasulullah ñoo ngi lay woo. woote bi nag dañoo bëgg ñii kuy wuusi nga xam nooy wuusee ndax dañoo nekk ci waxtu woo ne waxtu nawet la mbale saa su ne dee ànd ak matériel boo xam ne bii moom la war a balee ren rawatina kon kuy ñëw na nga indaale lu mën a bale moo xam ratu la moo xam illeer la moo xam peel la waaye bul indi loxo neen ngeen indaale matériel koo xam ne am ko oto yi na ko indaale te def ci gasoil soo ko mën soo ko mënul boo ñëw ñu def ci gasoil nga jàpp ci kenn ko nañ ci mën a jàppee lii nii mbir la moo xam Cheikh mu solkar yi moo ko njëkkoon def moo ko tàmbali. waxoon ni képp koo xam ne kii bale nga ci lu toll ni sa ker sa ker loxo wala lu toll ni tàggum përëntal say bakkaar ku ko def di jëmmi yàlla ji tax say bakkaar da dana set. kon loolu yéen jooju ne am ñëpp mu tàbbi ci ñoom ba tax ñu koy woo ñëpp ñu xam tamit ni mbooloo mi tënkuwut ci Daaru Xudoos dafa tënku ci képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah nga wuy si ñu te ci fànn gu mën a wuysee moo xam matériel ngay indi moo xam da ngay indi gasoil moo xam da ngay indi oto moo xam da ñëw boole yëpp indi indi ndoo ko ñu wuysee noonu suñ ñëwee tamit mbooleem ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi moo xam ci dëkk bi daal xulóos wala ñu dëkk ci foofu waaye man dëkk ci Tuubaa ñu bàyyi xel ni mbale mi daa am nañ ko lu ne day nasu door a mën a aw yoon lu bàyyi xel ni jali mbale yi nga xam moo ne ci biir kër yi wala ci roq-roqaan yi nañ ko génne jal ko ci mbedd yi jal yu mag duñ ko def jal yu mag a mag lañ koy def te lol nañ ko def bala alxames ñu ngoon lañ koy tambali suba manam aljuma 10 h fekk lol nopi nga xam su auto yi ñewé dañuy yubal ci jali yi daal koy tonni waaye bëggunu bale ba won ginaaw fañ won ginaaw nit di wat am mbalitam tam diko jël fofé nga xam ni dus ko gis wala buñ ko gisé bale ci bëreub ba weesoo di dëppal ñew diko balé bale te am balé gut lolou du ak yombal mbir kon ñu bayyi xel ni mbale mi dafa am nu mu tënku mooy kenn ku ne sa mbale fu mën nekk na ko génne ñu def ko jali mag yooyu oto yi mën faa ñëw fekk ko tonni ko mën koo yóbbu liggéey bi gën a taaru na taaru na nan ko bëggee tey nu xam ni bis boobu nga xam ne mooy la treize di ajuma nu bàyyi xel bu baax a baax ci ni fukki weer ak yaar moom la at mi doon ñu tànn ci benn bis wala sax du mat bis ndax fu deux heures trois heures jote daan wàcc incha allah. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kon nag woote baa ngi noonu bisub tawféex la bisub faj aajo la ndax bés bii la seex Mouhamadul Moustapha waxoon ni képp ku ci setal lu mu néew néew set wecc ci ay bàkkaar kon muy bis bi nga xam ni moom la ñuy seet setal Touba tàmbalee ko fii ci Daaru Xudóos waaye tam muy tàmbali boo xam ni tàmbale wàccaayu màggal ak Touba lay doon ci seet setal bi nga xam ni at mu jot dañ koy def lii mooy seet setal bi nga xam moo njëkk kon na ñëpp wuy si bàyyiwuñu kenn képp koo xam da yor mbootaay guy bale wala nga yor daayira buy bale foo man di nekk rek ñi ngi la ci wo ci ndigal serigne ahmadul muhtar mbake ci kilifteefuk Sering ousmane mbake mi nga xam mo jité diwanul muridina ak Siang cheikh ndjay mi nga xam ni mo jité village bu daru xuddoos jité mbale mi ak mbooleem ñi nga xam ni ñom la andal liggéey bo bulé kon mbokki programme baangi nonu